waxoon na ne léegi-léegi mu andi bunt boo xam ne ni benn xadis nekkut ci léeg-léeg mu andi yoo xam ne ni dégg nga ay laayal quraan ci nekk ak yu demee noonu foofu lañ tolloon لورالي كود ندلال من وقد أودح لنا السبب الأول في ذلك الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في مقدمة كتابه سنيل بن تيرم بفي أسماء رجال شتورو غورني رجال البخاري وشتورو غوري بخاري ليرالنا لمن لنلن جانج شداس بوغيس فقال من أخبرني نتلنا الحافظ أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد الهروي قال من حدثنا نتلني الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي قال من استنسخت بندنا كتاب البخاري من أصلي شيشانم الذي بنا قمنا كان نكون عند صاحبي كان دورم محمد بن يوسف الفربلي طلب بن تيرب فرج تيرب فرأيت ما جيت في تيرب أشياء يمبير لم تتم ممتط هم قامنا يوخم نيوخم لا شيء في البتة بنو تدرب waasiya ak ay mbir mu bayyada yuñ leeral min ha nekk na ci ay tarjuma am na yoo xam ne yu weex la kayit yu weex rek la am na tarjuma yoo xam ne la mees but saxut bandaha gannaaw ga waxoon nañu woo na yum tarjuma te bindu ci benn xadis wa min ha bokk na ci ahadisun ay xadis la muy tarjim tarjumu lahaa ñeen am na xadis yoo xam ne amu tërul ko tarjuma faa def naa ñu laaf baada zalik lenn ci loo ilaa baada jëm ci lenn li su ko defee nag ñoom ñu boole ko xool xadis bi boole ko tarjuma bële fi mu def xadis def fa tarjuma jël xadis bi boole ko fi mu def tarjuma loolu moo waral mbir mi xaw a jaxasoo dafa am yoo xam ni bindu ci dara ak yoo xam ne def na ci tarjuma xadis nekkul ci ak yoo xam ne xadis nañ ko defu tarjuma ñu jël fi mu def xadis boole ko fi mu defu tarjuma qaala woon abul walid albaaji ne wa mimma yaduru bokk na ci luy wane ala sixati hada alqawli ci wér ak bi la wax mooy ann riwayat abi isaaq almustamli ak riwayat abi muhammad asraxsiyu ak riwayat abi haysam alkusmihi alkusmihaniyu ak riwayat abi zayd almarwazi muxtalifatun dañoo wutee bi taqdimi ci jiital wa taaxir ak mujjee maa àndoon ànd ak ñoom in tasaqoo ñu ngi ñu ngi bindee min aslin waaye dañ ci benn cosaan mooy téere firabri bi firabri bi ci leen jëlee ñoom ñëpp te am na ñoo xam ne ni dañoo wutee lii ñu bind ko fii ci commencement bi ñee bind ko ci mujj kon dañoo jël téere bi boole yenn yi te waaye fekke wuñ ko woon noonu ci cosaan la mhm. kon yenn Buxaari yi noonu taarif ci yéen yenn bunt ci xadis yu bëri yéen ñi amul xadis hmm, dégg nga maanaam daf see tarjuma rek bindu ci dara gannaaw ga yéen yi mu bind ci ay alquran yéen yi moom xadis yu amul tarjuma ñoom ñu xool nuñ ko boolee rek kenn ku nekk ni niñ ko gisee ndax ñi ñëpp ñu bokk ci kuñ jëlee fi rabri te teewut nag wutee nañ ci jiital ak mujjee ñi jiital yenn yi ñi mujjee kon ñoom def nañ ci benn soppeeku way na ma ki nekk loolu bi xasbi ma qadara ci kem nam nattalee ku la waaxidin kenn ku nekk mine ci ñoom kaana nekkoon na fi turatin ci wàlla aw ruqaatin wala mu daafatin buñ laaf andoo ne moom min mawda in ma muy bokk ci ab barab fa daa foofu mu laaf ko ilay jëm si moom kenn ku nekk rek lam gis ci ab côté wala mu gis ko ci ab këyit fu mu yaakaar ne fa la bokk fa ko def wayu baynu dana leeral zaalika loolu ànd ak nag yow tajidu da ngay fekk tarjumatee ni ñaari tarjuma waag sara mbaalu gën a bëri min zaalika ci loolu mu tasiratun bu jokkoo lay si nekkul baynaa seen diggante ak xadis ay xadis nga gis ñaari tarjuma yu jokkoo diggante bi xadis nekku ci parce ñoom jàpp nañ ne kenn ku nekk daal ni nga ko laafee daal xaalawan albaaji way na ma awratu na ko ratal na xaasa lii hunaa fii li maa uniya ngir la sonnee nañ bii ci moom لما غير لصون النبي جم أهل بلد ناشم يندك من طلب معنى أنت ساكو معنى يجمع دنا دجل بين ترجمة دي كنت ترجمة بو حديث أك حديث الذي بين خم يلي هذا نجتوب كي جانغ بخاري لري عندما فك ترجمة أم نعم، ترجمة ما يلين دفتش بنت بلي ما يلين بنت بلي لا جانغ لي أك حديث يدين دبو فكرة فينا قاعدين صن لول بقول لا متخ fekk lu mel nii moo ko waral yow jël tarjuma boo xam ni leneen taxoon ñu def ko boole ko xadis boo xam ni duwul woon palaasam mais nag sonne gi waa dëkk bi di sonnee sàkku maanaa goo xam ne yëj moo dana boole benn tarjumat diggante tarjuma bi wala xadis ak xadis allazi bi nga xam ne yëli xaa sës na ca dégg nga wa takallufim ak toggoo gi ñu toggoo min zalika ci loolu min taasuf fi tawil yi ci coonaab التاويل ما لا خم لا يسوق دو جادو موتا ما اني لين لي بو وان لين لي مي بروبليم انتهى جهنم قلت وحنا من وهذه لي قاعده تنكر حسنه برفر يفصم درن ويدو اليها جنس موم عند يتعصر جمن بو جفي الجم بدجل وجه الجميع انا مدجل بين ترجمه ديغن ترجمه والحديث اك حديث ترجمه بك حديث بو كو دجل يومبول manam boole len bu yombul rek xamal ne li moko waral ويتر المواد أي برابلة قليلة منه جدا لول ستظهر دنا فين كما سيأتيكم نمدي كذلك إن شاء الله ونسمع الله تعالى كمان برابلة كم نيران منو لينو آه، دجال ترجمة بي جميع حديث بي منو لينو أمون رابور لنولا بنشي أجي دانو كلير كون تيري بني لغو بخاري تالي فين دفعهم ديجي يو خمي لو تيري ترجمة دفوتي حديث أم يو خمي لو تيري حديث دفوتي ترجمة léegi nag ni jëlee téere bi ci firabri mi nga xam ne moo ko nettali ci Buxaari ñoom kenn ku nekk dafa xool xadis bu nekk fa mu yaakaar ne fa la war a dugg rek tarjuma bi ak xadis bi ñoo war a bokk rek mu boole leen ba muy war a léeg-léegi njumte yi di am mu amaat beneen sew-sew bu mu leeral ne summa zahara topp mu feeñ di ñen ma anal Buxaari na anal مع ذلك عند لول فيما يريد وتلمي رطل من تراجم الأبواب سترجم قنتي على أطوار انتهى إثابلة نعم لتخ بخاري دفع الترجمة نفهم أي فصل إن وجد أبو فك حديثا حديث يناسب بل فوق ذلك الباب وبل بنت ولو على وجه خفي ديجي أنم قنبلة ووافق مدى فوق شرطه شرطا أورده رطل نقفيت من بصيغة تتقن التي بين قمني jaala def na ko mustalahu mustalaxatan muy luñ luñ xéwénoo li mawdoi kitaab yi ñeel te mu téeram bi waya te loolu mooy xaddasanaa nettal nañu wa maqaama ak la taxoona maqaama zalika taxawaay loolu taxawaay nettal nañu Buxaari bu amee xadis boo xam ne xadis bi dëppoo naag bunt bi mu bëgg a jàngale parce que moom dafay jàngale wala ay fiq ak ay masala di la dëppoo gi sax borom xam-xam bu xóot xam-xam moko meuna xam ndax junj gu sewal way la hadith bi dëppoo naa li bëgg jàngale te jëmmi hadith bi dëppoo ak saxtam mooy bokku na ci hadith yi gëna wér dana andi hadith bobu ci gannaaw tarjuma bobu andé ko nak ni nga xamné mom la waxé non lay indee xadisam hadith bu melno kon ci saxtam téeram la bokku ci hadith yi wér yi la mo dana hadith la netul nañu wala akhbarna naa wala yu wala ana anatu wala mu andee ci an ana bi sarta ci sartaam indoo fa Buxaari an nangam an nangam waaye moom booy waxee an nangam jëlee nañ ci nangam dafay fekk euh, ñoom ñaar sëriñ bi ak taalibe bi daje mu sax ne daje ne bu dee ci muslim nañ bokk jamono rek wala méjit ne dina fekkut fii ci moom wala méjit bu fekkut fii ci bunt boobu illaa xadisan lu mooy xadis boo xam ne laay waafiq lu dëppoog sartoo sartaam maa salaaxiyati ànd ak xéwanam lil xujjati ngir lay katabu bind na ko fil bi ci bunt bi mu xaayiran muy aji wuuteeg li siixati ñeel tëggin allati bi nga xam ne yesuuqu dana màng bi ci moom maanaa xam humu min charte yi muy bokk charte su fekkee benn bunt bu mu bëgg indil xadis waaye bunt boobu xadis ba mu ci gis man nañ koo layee ndax wér na dégg waaye nag dëppoo wut ak sartam mu sart yi mu wax ne moom lay xoolee xadis yi bii manqué na ci waaye nag yeneen borom xam-xam dañ ko layee dana indi xadis boobu waaye nag dafay wuuteeg na muy indee ay xadis yu téeram maanaam du indi xadasana du indi nangam mën naa ko indi rotal ci sanad bi ñenn ñu te xadis bi mu rotal ci ñenn pour wane ne xadis bii mën nañ koo layee pour lii pour bunt bi yima indi mais moom laay jàngale xadis bi mat na ci lay waaye dëppoowut ak sama sart moo tax mu indi taaliqi wa min samata foofu awrada la rotal ak taaliq taaliqi kama siyaati comme nu mu dikkee fi ci bunt bi jàngale atteb taaliq noonu la koy Buxaari defee kon bu bunt bu bëgg a jàngale gis ci xadis bu dëppoog sartam nga xam moom wér na fa moom daf koy indi comme ni mu indi ay xadisam xaddasana nettali nañu pour doogu ne lii moom yonentoo ko nettali sallallahu alayhi bu fekkee nag am na ci xadis bunt boobu am na ci xadis bu dëppoo ak sartam waaye mën nañ koo layee dëppoo nag sarta ñeneen mu andi ko ci façon bu wuuteeg moom lam sartaalu ne noonu lay indi téere pour wane ne lii xojja la waaye nag du ci moom ci la indee taaliq yi. wala mi jël bu fekkul fii ci buntu bi xadisan sahihan xadis bu wér. laa ala charte yi nekkul ci chartam wala ala charte ay keneen waa mais ab bunt boo xam ni ab masala la benn xadis bu wér bu dëppoog charte Buxaari wala charte keneen ci ñooñ Buxaari yi amut ca xam nga charte Buxaari dañ ko leer léegi moom borom xam-xam yi gën a mag day jël seen xadis yenn am na yenn façon borom xam-xam yoo xam ne seen xadis yi nangu nañ ko waaye du ko jël yi gën a wóor day jël seen xadis bu fekkee nag bunt bi mu bëgg a jàngale amul ci charte bu dëppoog charte ami moom Buxaari amul charte bu dëppoog charte beneen borom xam-xam waaye hadis am na ci wa kaana mu nekk moom hadis boobu mimma ci hadis yi nga xam ne yusta anasu danañ wettalikoo bii ci moom nga xam ni daal gën a dal xel wa yuqaddimu mu di ko a xawmun aw nit alal qiyaas yi ci qiyaas xam nga bu ñu amul benn xadis dañuy qiyaas masala yi waaye nag am na yenn xadis yi nga xam ni xegguñ ci dégëra lott yoo xam ni ma nañ ko sànni maanaam حديث بلوط دال مو جيت اب قياس بو امي حديث بو مل نونو داف كوي اندي استعمال دنا جيفن ديكو لفظ ذلك الحديث باتو بوبو الحديث او معنى ولا معنى حديث بالترجمة باب مي ترجمة بنت كون حديث بو مملاي جيل ترجمة كو بنت بي مملاي ريف مي ترجمة بنت بي ne buntu nangam indi jëmmé hadith bobu nga xamné kon buntu bi amul ci hadith bu wér dëppoog sartaan wala bu dëppoog sartaan keneen moo tax mu jël jëmmi xadis ba ci am nga xam ni moo jiitu xiyaas balaa nit di xiyaas mu war a jàpp ci xadis boobu di leen dékku xadis bu dëgër jëmmi xadis boobu moom lay def tarjuma bunt bi suma awrada mu rotal fi zalika ci loolu imma benn ayatan aaya min kitaabillahi ci téere yàlla bi yushiru dana seedaloo ñeel ko aw xadisan wala xadis boo xam ne yu ayidu dana matal dana dëgëral umuma ma dalla mat rek la tegtal naa lii ci moom zalika xabar boobu la xadis xadis boobu nga xam ni moo am na ay nit yu koy jiital ci xiyaas dina dëgërut noonu moom lay def muy tarjuma bunt bi su paree moo indi ay aaye yuy dëgëral xadis boobu yoo xam ne maanaa xadis boobu la ñuy saxal wala moo indi yeneen xadis yoo xam ne la xadis bee di wax dugg na ci seen wax dina nekkul nag xaas waaye daal làmboona ko daal làmboo na xadis bu ne man ma mënees na ko see déggee dina dégg-dégg rek lay doon su ko defee kon loolu lay def kon su ko defee loolu dana la jàngal nga xam ne ni boo gisee lu mel ne nga xam ne buntu sàngam masala sàngam bu Buxaari jëlee jëmmi xadis def ko muy tarjuma bunt ba da ngay xam ne bunt bi moom xadis bu ñëw di ko saxal direct amut waaye nag la ci ñëw nii xadis bii Buxaari def tarjuma bi moom lañuy jiital ci xiyaas ci wàllu jëfe moom na xadis yoo xam ne yëgul ci dëgër lot yoo xam ne mën ne sañ ko sànni maanaam balaa nga yem ci xiyaas am nga xadis boo xam ni daal askan nañ ko yonent bi te yëgul ci dëgër lot yenn dëgër yu suuf yi nga jël xadis boobu di ko jëfee moo gën ngay xiyaas كن وعلى هذا بوس كل جوتلي في الأحاديث الحديث التي يخلنا في ينك بخاري على ثلاثة من يتقال وزيادة ذلك تفاصيل ذلك تقل لول مشروع عند الله إن شاء الله نسمى الله تعالى كبر هذا جو نيو نيو ينو بخاري يتقال ماي أنا تي تيرن بلا يتقال بنت بوخنا أمنا الحديث بول بلو بوك شرطام دفك عندي في سيغب دوغو نيرن توكو بنت بوخنا أمنا الحديث بوير واي شرطة كرين daf ko indi si siixa bu bokkut ak siixa ab dogo ni ki mu rotal ñenn ci sanad bi ak yu demee noonu ak bunt boo xam ne nii dégg nga amul ci xadis boo xam ne nii wér na ci moom amul wérut ci keneen waaye daal xadis boobu daal danañ ko mm, ah, dëgërloo mm, ci kaw xiyaas maanaam daal moo gën a dëgër ab xiyaas jëfandikoo xadis boobu moo gën jëfandikoo xiyaas si ñenn ci borom xam-xam yi dégg nga su boobaa xadis boobu lay def muy tarjuma bunt bi nii la indee ay téeréem mu ne wal na saa nañ suba daana léegi fi taxqiqi charte yi ci dëggal chartaan fii ci loolu wa taqriru kawni ak leeral nekkam asaxun kutubil musannafa di gën a wér ci téere yuñ taarif fi na nawawi ci hadis ñu dellu ci jàngal ne daal téere buxaari yi moo gën a wér ci mboolem téere yuñ taarif ci hadis loolu la di ko jàngale قال وانا الحافظ ابو الفضل بن طاهر فيما قالت لما جان على ثقه تشكور كما ابي الفرج بن حماد ان يونس بن ابراهيم بن عبد القوي ان يونس بن ابراهيم بن عبد القوي اخبر وخبار عن ابي حسن بن مقيق عن ابي المعمر المبارك بن احمد عن جريج البخاري من عن جريج ابو الفضل دينا. maamoon bu baarak an bun ahmad anu jëlee ci ahmad mu ne charte buxaari charte buxaari an yaxruja mooy mu génne al xadis xadis al muttafaq bañ dëpp wala siqati naqalati yi ci wóor ak ñu ko toxal xadis bu mu génnee ñu ko toxal ay nit yu wóor lañu ci wàllu xadis ila saxaabi ba si saxaaba al mashhur bu siw min gayri ixtilaafin ci lu wutee bayna siqaati si diggante ñu wóor ñu al asbaatu ñu sax ñi buxaari xadis yi muy génnee dafay nekk xadis yoo xam ne ñu koy nettali ñu xam lañ ñu wóor lañ ci wàllu xadis ba ci saxaaba nga xam ne borom xam-xam yi duñu wutee ci ñooñu mu nekk isnaadu sanadam muttasilan daa ju jokk xëyra maqtu mu nekk lu ñu dog xadis bi sanad bi day jokk waaye du dog lii mooy chartam xadis bu mel nii xamal ne génne na ko ci chartam yooyu la ñuy wax ne yëpp yu wér la kaan nekk na li saxaabi yi ñeel saxaaba bi raawiyaani ñaari way nettali façon yi mbaalu ko ëpp fa xasanun lu rafet la way lam yakun bu nekkul illaa raawin waahidin lu mooy benn aji nett di wa saxa mu wér ak tariqu yoon bi ilay jëm si moom kafa doy na bu fekkee kenn kuy nettali xadis boobu am na ñaar ñu ci moom wala ko ëpp baax na bu boobu kenn rek moo nettalee ci moom waaye bi wér na xadis boobu dana kon daal charte bi mooy borom xam-xam ni nga xam ne wóolu nañ leen ci wàllu xadis ñoo ñëwee nettali seen xadis su ma yekkoon topp mu nekk li taabi ñeel taabi al mashhur buñ siw bu siw bi raawiyaani ñaari way nettali si xataani yu wóor ilaa xëy kalaam yi ba ci mujj wax déedéet xaala mm. wax na ne wama daaw la woote na ko alxakim abu abdullahi na chart buxaari ne chart buxaari mm, aw muslim ak muslim nekkoon moom mu nekk li saxaabi ñeel saxaaba bi raawiyaani ñaari way nettali fa saaydan mbaalu ko ëpp su ma yekkoon topp mu nekk li taabi ñeel taabi al mashhur bu siw رابع يعني نيار بين تلي سقطان يور إلى آخر كلامي بجم جوهم فمنتقد أجي يقول عليه جمون بأنهما نجلن يوم نيار بخاري مسلم أخرجا جينين أحاديث جماعة حديث مبارو من الصحابة الصحابين خم ليس كلهم نيلن إلا رابع لما أجينا تلواهد بين انتهى جحنا حاكم دفن البخاري مسلم بلا ñu gënë hadith sahaba da fay fekk ñaar jëre ci sahaba bobu tabi bi tamit ñaar jëre ci mom ba ci mujj hadith bi moom loolu wérut ndax nettal nañ ci saxaaba yi ñu bëri ñoo xam ni kenn rek moo nettalee ci ñoom te génne nañ seen i xadis kon wax jooju xakim wax xëy na nee na ñàkk seetlu la intaha jeex na wa shaatu shaatu alladi ba nga xam ne zakaro tudd na ko alxakim xakim wa in kaana di la nekk na muntaqidan jaaji yàqu fi xaqi baadi saxaabati ci xaqi ñenn ci saxaaba yi الذي آه، الذين يا خمنا أخرج جننا لهم يلن ده ين صحابة يكن رم وان جلش ميم تو بخاري نتل نرى المسلم لول مم بدي آه، لجح حاكم وخبر وافيلو نك وخو حاكم بمعتبر لين قلم لا في حاكم بعدهم شاكين ينك جننا صحابة فليس نكوت في الكتاب الشربي حديث أصل حديث جسان من رواية من سنتري كان قمنا ليس نكون له نيلكو إلا راي واحد المهم بين أجنتري فقط قتل مك مانام gannaaw saxaaba yi dégg nga ñoom hadis bu buñ génneel ci taabiin rek ku dul saxaaba rek xamal ne kooku ñaar ne nettale nañ ci moom buñ génnee hadis boo xam ne ñaar nettale wuñ ci moom nekkul hadis boo xam ne cosaan la hadis bi boo xam ne dafa ñëw ci mutabaati maanaam dafay dëgëral rek yeneen hadis waaye hadis yi nga xam ne cosaan lañ moom su ko defee génneeluñ ci lu mooy gannaaw saxaaba yi lu mooy koo xam ne ñaar nettale nañ ci moom wala lu ko ëpp waaye koo xam ne kenn rekk nekk lee ci moom ñu gënnal ko kooku amut gënnaaw saxaaba yi kon xakim mi wax it mën naa nekk lu wér ndax amaana moom mu namu ci gënnaaw saxaaba yi daal génneeruñ benn xadis xam naa def naa ne kilifa gu mel ni moom du wax lu mu xamut kon gannaaw saxaaba yi la ci namu nga xen ko ci wax ji gën a rafet dañ ko dundoo gënnaaw saxaaba yi kuñ génneel xadis rek ñaar jëlee nañ ci moom mën nga koo firee noonu وقال من أبو بكر الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله إن هذا الذي لنا خمن قال وحنك الحاكم حاكم قول من وحك خمن لم يمعن قتل الغور قوس في خبايا صحيح للنبوت في تيري بوير بو بخاري لو استقرا بو توبون الكتاب تيري بحق استقرا اي دق دق توب لو جلدنا فيك جملة جملة جملة من دجل من الكتاب السيري بي ناقدة المؤجوتك دعوة ووتر manam neena hakim dal dafa xóotalul gëstum bu xóotaloon gëstum dana gis ne lam wax wute naag li bukhari muslim def ndax ñoom jëlee nañ ci sahaba yu bari yo xamne kenn nett jëlee nañ ci ay sahaba yo xamne kenn mo moo nettalee ci ñoom waye tabiini taabiine yi génneluñ ci kenn koo xam ne kenn nettalee ci mom lu moy ci mutabaati yi waaye ñëwut ci usul yi xanaa la layal xaakim daal du yomb parce que mo def ne charte Buxaari muslim mooy saxaaba bi am ñaari ñaar ñu nettalee ci moom taabiin bi tamit noonu ñaar ba ci mujj wax ja hmm. bu waxoon daal gannaaw saxaaba bi koroon ñu mën koo layal daal li mu wax saxaaba bi moo ko yàq soo defee daal kon loolu nga xam ne xaakim wax na ko nekk li nga xam ne moom mooy lu wér di la ne loo bëri bëri xam-xam mën ngaa juum in uriidu illal islaah mastata'tu wa ma tawfiiqii illaa billaah alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib wassalaamu aleykum wa rahmatullaahi